dafa dawoon ak seen ay euh, liste euh, finalement mu rejoindre euh, les marrons beiges mais à notre grande surprise dañoo gis kii di président de la république Macky Sall recevoir ko en tant que président de la république Macky Sall en tant que président est-ce que waroon jouer à ce jeu. c'est la gestion du matin. ah la gestion. mais du matin c'est mais quelle valeur lay renvoyer à la ah, population. pour ne pas dire aux enfants. c'est pas bien. c'était bien c'est la valeur du c'est la gestion du matin. Mhm. war na recevoir ku nekk ba mu des koo xam dafa sàcc ay document mhm. c'est la gestion du matin. Mhm. nee neex la ñuy def loolu la gis quoi. et triste. et Yewwi Askan Wi tey euh, tenir nen euh, point de presse di xam ne di euh, dinañ porter plainte kii di président Macky Sall pour haute trahison ak tamit porter kii nga xam ne plainte ki nga xam ne mooy Djibril Ngom est-ce que yaakaar ngeen ni dinañ am gain de cause. un président en exercice. si je eh, me na fekk ñu porter plainte Djibril Ngom yàgg na dès le lendemain. ils ont beaucoup d'avocats seen mm-hmm. dès le lendemain ils devaient porter plainte ils doivent même pas dire on va porter plainte à Djibril Ngom dès le lendemain waroon nañ ko porter mm-hmm. depuis longtemps parce que il a volé quoi. voilà il a trahi. su fekkoon document am kese la jël yóbbu. Mm-hmm. mais dafa jël yëpp. maanaam sàcc ay excès de naissance su jàmbur. yóbbu c'est du vol. muy suukar muy lu mu munti doon vol vol rek Donc là, il fallait porter plainte dès le lendemain. Faire constater ça et le porter plainte dès le lendemain, mais pas dire publiquement qu'on va porter plainte. Loolu yéex na di. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ndella euh, élection locale yi euh, vous faites partie des femmes qui sont en tête de liste proportionnelle mais sous la bannière de Wallu euh, Sénégal ñu gis ne carrément les femmes si élection yi ba tey euh, elles ont du mal à s'imposer gis nga ce qui s'est passé avec euh, Souma Wardini à Dakar tey jii est-ce que jàpp ngeen ne yéen femmes yi si wàllum politique gëdd gi leen waroon jox jox na leen ko. ñoo ko war a joxal suñu bopp c'est tout voilà loolu il faut que les femmes leaders acceptent de créer chacune un mhm. parti politique. jigéenu leader bu nekk dafa war a créer parti politique yàgg naa ko di yuuxu. pour yow euh, Soham euh, elle ne s'est pas assez imposée. c'était avec beaucoup de retard xam nga gars su fekkee dañoo bëggoon on sentait carrément que gars yi euh, kii lañ gënoon bëgg ah. Mhm. parce que lii mi lañ gënoon bëgg. maintenant heureusement que elle s'est présentée sur une autre bannière. Mhm. donc ça veut dire qu'elle avait un plan B. Mhm. voilà que ce soit su bannière u Yewwi wala bannière u xaw ma toujours est-il qu'elle est tête de liste majoritaire. Hein? Mm -hmm. voilà, elle va se battre pour euh, obtenir quelque chose. Et voilà, donc euh, il faut que jigéen ñi xam ne il faut ñu def comme Ndella Madior. Mm-hmm. créer seen parti politique. Mm-hmm. su ñuy créer seen parti politique fépp fu ñuy wooyee chef de parti ñu ñëw toog. mais Ndella sa mm-hmm. parti politique bi aussi je je vous mais euh, il a du mal aussi à exister am na sama récépissé. Uh-huh. fu gars yi fu chef de parti di toog fa lay toog coalition su damay indi sama récépissé de parti indiwuma mouvement indiwuma association indiwuma personne seule j'amène un récépissé de parti ak sama mbooloo xeex ko sama xeex def sama communication lu ma yàlla jox par rapport ak sama liggéey sur le terrain ma xam ne lii laa mérité am appel bu may lancé mooy jigéen ñi liggéey yëpp nañuy créer seen parti dix personnes ñooy créer parti pour ñu ko xamul avec moins de 10 000 francs la ñuy euh, créer. un parti juste pour créer un parti. non créer un parti pour eh, pour mun a bokk. parce que góor ñi dañoo dominer benn façon dominer boo xam ne day feeñ maintenant élection su jotee. Mhm. mais s'il y avait autant de femmes chefs de parti que d'hommes chefs de parti nañu dem si un million ça me gêne pas. man maa yore trois centième parti dégg naa entre temps am na cent cinquante de plus. Mhm. wóoruma mais mi ngi dem mais là c'est une liberté d'expression ku mu neex créer parti participer élection da ngay joxe sa caution neexulu kenn man élection bu nekk jox bokk naa si dégg nga bii mujj bii laa joxeel caution Ablaye Wade ñoo ngi joxal caution ñëpp joxe 30 millions yi. donc da la ngaa moom. mais dama dama dugg si coalition damaa dugg sama papa mais ndee la damaa dugg si coalition wàllu. <laughs> dégg wax ji parce que ku damal sa bopp di fii coalition mooy tax. c'est pas pour rien que ma kii comment il s'appelle encore Macky Sall jafandu ko si Benno Bokk Yaakaar. Mm. kon Ndella Madior du ne waaw man hernia man kese maay demal sama bopp et cetera dépassé naa stade boobu def naa ko départ joxe naa sama 20 millions demal naa sama bopp gis naa résultat yi. <laughs> coalition lay damay législative yi di ñëw on va voir ndax damay créer sama coalition bopp ndax damay continuer ak coalition wàllu dégg nga wax ji mais j'irai plus jamais seul. mais coalition wàllu Ndella surtout vous les femmes euh, Ndella. Euh, est-ce que yaakaar ngeen nga am chance foofu li euh, si film film la kan lan moo war euh, tax la population film la euh, voté ki nga xam ne mooy Ndella parce que déjà vous maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne moom ngeen àndal ñëpp dañoo jàpp ne carrément il travaille pour le président de la République Macky Sall. ak dañ koy tooñ rek. presse bi di si ànd rek. gis nga sax fan yii nii. ñuy wax ak ko mën a tooñ te <laughs> presse bi dañuy gunge rek damay bàyyi leen tooñ. mais Ndella laisse-moi bàyyi leen tooñ Ablaye Wade waa eggali. gis neen fan yii sax ñu ngi wax euh, pour président de la république Macky Sall am na mbépp euh, delluwaat kii nga xam ne mooy euh, Khalifa Abacar Sall ak doomi Abdoulaye Wade. voilà. donc du coup euh, lan mooy seen chance euh, Ndella pour mu gagné li nga xam ne mooy mairie bu Fimela euh, ñi gis ne mu bokk si benn coalition boo xam ne Ndella je vous apprends rien du tout c'est une coalition assez controversée dama lay tontu ne la je suis déjà madame le maire. ah bon d'accord loolu mu neex leen nakari leen. je suis tête de liste proportionnelle xam lan lay tekki. Ah. dugg naa pare. tête de liste proportionnelle dañuy dugg pare. je suis pas dans ces listes majoritaires le maire le maire est issu de la liste majoritaire tête de liste majoritaire bi mooy nekk maire dégg nga wax ji ñi nekk si liste proportionnelle yi mun nañ nekk simple conseiller nekk adjoint au maire et les adjoints au maire on les appelle madame le maire kon il faudra compter avec madame le maire Ndella Madior Diouf qu'il pleuve qu'il neige dégg ngeen wax ji mhm. am ñoo xam ne mosuñoo koo xalaat nee naa leen qu'il pleuve qu'il neige nañ ma sóoraale. mais Ndella par rapport ak élection locale yi aussi euh, enjeu particulier bi nga xam ne euh, les deux côtés jox nañ ko ñi nga xam ne ñoo féetoo aussi ci opposition wala ci pouvoir bi est-ce que finalement demuñ ba faussé li nga xam ne mooy euh, jeu yi élection locale parce que élection locale c'est c'est pour la base. qu'est-ce qui justifie engouement bi pour ne pas dire violence bi nga xam ne les ressources naturelles gisoo fële ah euh, à Kédougou ñu ñu ñu tëbal giraas yi uh-huh. or ba fa nekk moo tax ak marbre bi ah bon waaw pour avoir accès aux ressources naturelles coow li coow loolu la di ah. hmm. Hmm. pour ceux qui ont compris hmm. foo gis mu am coow rek soo gasee suuf ba xam gis fa dara est-ce que aussi mënuñoo wax ne aussi euh, baromètre la pour le président de la République comme nu ko Mamou Saleh waxee pour euh, élection 2024. 2024 yi bokkul ñoom dañuy wax ni di nappaate. ah bokkul ça prend fin en 2024 point barre. retour poste premier ministre. prétexte pour changer la constitution pour enlever cette cette restriction xam nga dañ ko restreindre Macky Sall dañ ko restreindre il faut reprendre ce terme. ah bon dañ ko ah a donc reste naa deux mandats ils veulent l'enlever. Euh, retour premier ministre bi aussi euh, mën na am pas besoin question négative si wàllum fonctionnement de l'Assemblée nationale est-ce que da nga partagé aussi avis boobu am na ñuy dem sax ba ne kii di président de la République mun na dem ba dissoudre li nga xam ne mooy Assemblée nationale ban Assemblée nationale ngay wax bi nga xam ne Touba sa bokk si 2017 de la ñuy fokkati tey tey tey tey damay jël joxaatal bene Ndella la bataille de Dakar aussi on en parle Ndella Barthélémy Diaz fougue ak jeunesse ak tamit voilà. la soo amaat il a une fougue comme moi c'est l'âge. c'est l'âge voilà il a cette de jeunesse c'est bien. Uh-huh. comme noonu la ko Doudou Wade amee ku si nekk ak sa style. Uh-huh. ku nekk ak sa style Ablaye Wade mi ngi ñëw de. Abdoulaye Wade mu ngi ñëw. décembre bi mi ngi ñëw su ñëwee at mi tukki. mais attends mais mais mais mais mais Ndella eh, est-ce que carrément sérieusement euh, j'aime bien sama papa Doudou Wade mais est-ce que yaakaar nga ni dina am chance par rapport ak candidat yi nga xam ne ñoo nekk en en ligne. ci course bi gis nga carrément Diouf Sarr avec tous les moyens de l'État Barthélémy Diaz avec euh, toute la jeunesse. Diouf Sarr n'a aucune chance. ah. il n'a pas réussi son ministère donc il va pas réussir Dakar. Ah bon Bah oui. Le de Dakar sera dans l'opposition. mu doon kan. yàlla xam ñoom ñëpp dañuy ñafe yàlla nekk sama candidat man sama candidat mooy Doudou Wade parce que maa ngi coalition Wallu. Mhm. donc c'est tout. Mhm. Ndella on va terminer euh, émission bi jeex na tàkk mais dama bëggoon rek euh, ñu waxtaan aussi euh, par rapport ak. voilà, la restauration des valeurs au Sénégal aussi, on en parle aussi, dérive sur les réseaux sociaux aussi, on en parle. Dañuy wax aussi euh, par rapport ak euh, li nga xam ne mooy euh, élection Miss Sénégal ku mel ni comme ONG Jamra bokk si ñi nga xam ne dañoo jàpp ne au-delà de Fatima Dione l'organisation de Miss Sénégal au Sénégal moom leen war a dissoudre est-ce que da nga partagé. Uh-huh. je suis pas d'accord a continuer. mais critères yi rek la ñu war a changer défilé nu moom loolu maa je suis en tant que uh-huh. femme. Hein, euh, en remarque, euh, Sohan Vardini était une Miss. Hein, mm -hmm. hein je ne sais pas si tu as cette information ou pas, je pense. Ah bon Oui, c'était une Miss. Sohan Vardini Oui, oui, c'était une Miss. Voilà. Même Donc, ma euh, sœur euh, Maïmouna, Maïmouna, Maïmouna Bousso, euh, il paraît qu'elle euh, eh était miss. une Miss. Ouais, elles sont toutes belles. Uh-huh. Ça ne les empêche pas d'être intelligentes. Mm -hmm. Ça ne les empêche pas d'être intelligentes, oui. Mm -hmm. Donc, pourquoi arrêter euh, euh, d'honorer la femme, la beauté de la femme africaine Maintenant,